thank you ah <laughs> xanaa du xanaa man du musulman waaw laa ilaaha illallaah Muhammad rasulullaah sallallaahu alayhi wa ma santee sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom maxrim axlaa sant sama sëriñ Ablaye Wade di sant nag waa kër Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam baax di sant musulman wu Sénégal yi ndaxte vraiment tey fii moom ku fa waroon sànni mbatt la ko dafa waroon takk quoi ndaxte te ñun amuñu kenn ku dul yërënte bi sallallaahu alayhi wa sallam kon boog yéefar bee ñu naan Macron dafa doon yor waaye dafa doon a am a dafa des Macron yaayam euh, yéefar la papam yéefar ay ay doomam yéefar lañu kun kooku dañuy ñaan yàlla rek yàlla nañu ko yàlla toroxal si bëccëg nar kam xam naa ne moom moom ak ay njabootam waxuma sax waa mais moom ak ay waa njabootam ak képp koo xam day sànni xeer yonent bi salaay salaam rek yàlla ñu ko yàlla alagal bëccëg nar kam ñu xam ne mbir mi du kenn gannaaw yàlla sidina Muhammad salaay salaam barke sëñ Bamba waaw wasalaam